santé wala bii wala bii nga nga nekk ci kàmgam gi yow war cee dérouler une feuille de route mu lajj mbaa mu réussir bañ la ci confondre donc une responsabilité morale rek lañ la mën a imputer euh, ci ci ci ci Pastef alors après avoir passé douze ans auprès du président de la République non euh, si responsabilité morale boobu bala ngaa dem waaw ma responsabilité au sein du cabinet du président la République était d'abord une responsabilité technique. non je sais bu ñu bu ñu bu ñu ah, taxaw ci loolu donc bu ñu wax ah, responsabilité ah, morale da ngay wax responsabilité technique. ni dara xew 7TV. Uh-huh. man defuma ko. Uh-huh. mais dañ may imputer mën nañ ma imputer la responsabilité morale. oui y a pas de problème. voilà voilà foofu laay waxee. alors yow miy nekk ak Macky pendant 12 ans. Uh-huh. nga nekk ci wetam di ko xelal. Euh, nan nga ko nan nga koy qualifier. Euh, ci passifam ak ci actifam waaw dama ni la ci passifam euh, encore une fois man mënuma lu bi répondre question bi ma journaliste bi posé parce que ñi ñuy déglu bokk na ci warmal leen liñ la laaj nga tontu ci sur son passif nga ni su ma ko doon dingat lu ma ciy wax président Macky Sall passifam mënoon na tuuti lool su fekkoon ni président Macky Sall dafa nekk nit koo xam ne nii ci jotam dana di toog ak lu ëpp lim li muy toog ak conseil kon am na lu bari ci passifam loo xam ne nii mënoon na yées ndax yées bi moo gën mu jéggi dayoo donc ci passifam mooy du dégloo ñaari nopp donte nee nañu c'est c'est un écoute mais dafa war di déglu dégloo ñaari nopp bu kenn ñëwee wax ba noppi keneen ñëw wax mu jox ko beneen nopp bi su fa jógee mu segg ñaari wax yi waaye bu dee benn benn nopp xam lan moo waral benn nopp bi hmm. mooy toog yi mu duy toog ak maanaam mu jël kuñ naan diw nga mën a lim ci weer wi toog naa kooku lu war a met fukki yoon ak juróom moo xam ministre la moo xam du ministre du ma tudd tur parce que loolu indiwuñu fi te ka mu toogal fukki fukk yoon ak juróom ci weer wi mu toogoon ak moom benn jataay ak ku ñuy tuddee conseiller jox ak métier bi moo gënoon di am jeexital ci réew mi ak ci moom loolu bokk na ci li gën a sooxeel bilan ci wàll bi nga xam ni nii lu ñuy ñaawlu la loolu leer na. beneen. alors boobu doyul. am na yeneen. Euh, dama lay jox rek boobu président Macky Sall. li sooxeel indil ko passif bi nga xam ne nii passif la bu nit mën a teg loxo te man ma ciy responsable di revendiquer responsabilité passif boobu ni may revendiquer actif bi yaakaar naa dana ñëw ci actif bi tamit li may revendiquer actif bi noonu laay revendiquer passif bi bokk na ci li sooxeel mbiram mooy neex gi jataayook ñenn yi neex ko ba mu leen di may ba ci fukki yoon wala fukki yoon ak juróom wala ñaar fukki yoon di jataay ak ñoom ci weer wi. donc loolu rek moo sooxeel. mais ma tuuti mais ma tuuti dama ni la li ci li ko gën a sooxeel loolu la ndax fa mu war a roote rootewu fa gis nga boo ro gis nga lépp loo gis li ci des muy lu ñuul lu ñu mën a teg baaraam dafa fekk ni fa mu waroon a roote pour moytu loolu roote wu fa ñàkk roote fa nga war a roote doy na ci nasaxal lépp lu ñu ci yor. ndaxte dafa am jataay yu ko gën a neex yeneen jataay te mu yore yëfu yëfu ñëpp gis nga jataay bu la gën a neex beneen jataay xam nga fan la neexee soo yoree sa yëfi bopp waaye boo yoree yëfu ñëpp amatoo droit di wut jataay la neex di wut bu la naqari da ngay wut jataay lay amal njëriñ président Macky Sall jataay ya koy amal njariñ ca ñamu jàpp jàppe conseiller moo gën a néew li muy jataay yoo ña ko dul xelal luy joyantu réew alors à part euh, doy na pour soo xel gouvernance à loolu. Mhm. ba lan nga nemmeeku euh, ci pasifam alors li ma nemmeeku ci pasifam euh, ñi ngi dëkkmal campagne bu am solo may ñaan campagne boobu te bokk na man ma ñaan ko ci campagne boobu mooy euh, mu fexe ba campagne bi nekk campagne bu rafet te lalu ci jongante rek bu ñu jongantee ki xalaatam gën a rafet. ñu ni kii la xalaatam gën a rafet moom lañ wóolu pour jiital ko te sénégalais yi mën nañ ko te kenn du leen ko sant ñoo koy defal seen bopp te danañ ca toll na fexe ba lépp rafet beneen passif bi euh, te lu lu yéeme la te am solo mooy président Macky Sall tey am na ku nekk ci kujje gi ku nekk kaso ku nekkoon ci kujje gi ku nekk ci kaso ñu seyal waaw ñu seyal parteem euh, yaakaar naa ni tey soo ko woowoon ni ko président dama bëgg nga wax la lan moo la metti ci fukki at ak ñaar yi nga teg ci boppu Sénégal lu la ci metti loo xam ne nii bu doon sa sago du am danaan la bu doon sama sago duma tëj benn nit mm. du muy du waaw loolu lay wax man ab man président kooku dama koy seddeel lu baax parce que mm. lu baax loolu xam naa ko ci moom président Macky Sall mënul am lu ko gën a naqari jël doomu jàmbur yóbbu ko kaso ñëw yóbbu ko sa bari na mais ma ñëw dafa nànk ma ñëw boo ma dégloo rek danga xam fi ma jëm te danañ bokk euh, baaxe ñi ñuy déglu lu bon bon lu tuuti luñ mën a tëraat tëddaale. su amee bokk na ci li nga xam ne nii jàpp naa ni boo ko ko laajoon lu ko naqari ci magistère am lay doon ci yorin bi mu yor Sénégal mooy ay nit dem kaso ci jamono bi mu nekkee président. ba mu tëj sax koo xam ne nii maire d'une grande ville la jamono bi mu nekkee président amul dara lu ko ci neex waaye moo ko teg boppam. xam nan la ko tegee boppam. mooy président Macky Sall dafa defe nii réew lim rek a ko yor maanaam am naa nangami militant maa fi mën moom loolu mooy li gën a sooxeel yorinu réewam parce que dafay wàññi nit ñi ci boo demee ci boroom xam-xam yi yàlla may leen digg-digg ci téere bi danaan la. moytu leen mbooloo parce que yàlla koy joxe mën na la fal doo am mbooloo. ndax la muy def ci dënnu nit ñi ba ñu fal la moom moo ko xam moom bokk na ci li soo xel yorinam yorinam mooy defe na ni nit ñi da leen war a wàññi. boo leen waññee may mun a ndur fay su ëppee ay nit ñu topp ci gannaawam moo gën a yelloo nekk ministre Abdoul Aziz Diop bëriwul nit ñu topp ci gannaawam. Hmm. gis nga loolu su fekkee ni. dafa sori trop ci nit ki ci kiy yëngu ci politique xam nga nan la koy jural lam koy jural mooy euh, wàññi gi muy wàññi nit ñi day tax lii tee ñu dem ba jëmmi jamono mu war a jàpp ay jaam dugal ci kaso bi xam nga loolu lan moo ko waroon a fànq lan moo ko waroon a fànq li ko waroon fànq mooy président Macky Sall gëm ni am lim ci ay nit baax na waaye am na lu gën loolu mooy réew mi ñu koy faral di waxtaane diggante kujje gi ak ñi nekk ñi ngànk réew mi muy débat contradictoire moom laa nekk di ko def ak yow donte doo opposante wala ngay wala nga bokk ci majorité mais journaliste nga yaa ngi mais mais mais ci ma ñëw ma ñëw ma ñëw même ma jeexal non non foofu ci fonk gi mu fonk lim waaw euh, quel est le rapport entre ni ko lim maas yi di impressionné ak l'emprisonnement Euh, des Khalifa Sall. très bien Karim Wade. Barthélémy Diaz Ousmane Sonko euh, de Pastef euh, actuellement waaw foofu laa bëgg a addu soo ma mm. mayee rek ñaari simili su fekkee di yow politique da nga fonk lim ba mu jéggi dayoo maanaam doo gestu doomu Sénégal muy góor du jigéen lu dul da nga gis mbooloo ci gannaawam te mbooloo mi sax xamoon nu mu bindoo ma jox ma jox la ci benn firnde ba mu ba ko Idrissa Seck tàllalee loxo ba fekki ko mu gis ni Idriss Cees ga mu dëkk am na fa mbooloo waaye xamul na mbooloo ma bindoo ba mu ko dugalee ci boppam nangul ko ñëw gi mu ñëw taxul mu gañee local taxul mu gañee législative mu moo lay wax ni mbooloo yor na ko mais yorul lépp leneen xam nga lan moo yor lépp ci ci ci ci politique dëgg li yor lépp ba pare ëmbaale mbooloo mooy nga nangu yow mi nekk ci bopp réew mi surtout télévision ak rajo bi ñëpp bokk di RTS ak bi nga xam ne nii Maimouna Ndour Faye ci yitteem la taxawal li mu taxawal di 7 TV ñu farlu nga may leen ndëgërlaay jàppale leen gunge leen ba ñu mën a organiser ci anam yi gën a rafet li tubaab tudde débat contradictoire maanaam ñu ni tey mbay mi la ñuy waxtaanee RTS kan ak séq waxtaan bi ñu ni Ousmane Sonko. bi kujjeem gën a tar ci kujje yi moom la ñu jël tey mu war a séq ak waxtaan RTS en direct débat contradictoire ci wàllu agriculture war ko séq ak Mame Mbaye Niang dama jël Mame Mbaye Niang rek pour indiwaat anecdote bi pour indiwaat événement yi mais bu ko roogee wala dafay séq ak Mame Mbaye tourisme xam nga ki nga séqal Ousmane Sonko su fekkoon ni dafay jonganteeg Mame may Niang ci tourisme ndax dañ jël tourisme teg ko ci loxo yi maam Mbaye Niang te moom muy meeru dëkk bu mag di Ziguinchor bu ko rogee na waxtaan bay mujje mooy tax sénégalais yi ni Mame may Niang day gàcce ngalaama wala Ousmane Sonko day gàcce ngalaama gis nga gàcce ngalaama googu jóge ci dënnu askan bi moo ëpp solo lim bi nekk ci gannaaw Maïmouna Ndour Faye te xamoo lim bi lu ko indi ak nu mu bindoo. gis nga loolu jox gëdd gu ëpp gëdd ji mu am lim te gisul lu nu lim moo tax ci jëfinam mu jëfe noo xam ne nii lim bee ko ko joxoñ fekk na am na leneen lu ko ko mënoon a joxoñ lu ëpp jeexital. mooy ñi ah?